sëriñ bi nee na mi ngi nuyu bokki taalibe yi fi teew yépp nee na mi ngi nuyu bokki jullit yi fi teew yépp nee na mi ngi leen di siyaare bu baax a baax kii nga xam ni ñépp a ko bokk lislaam bépp a ko ñàkk rawatina nag yoonu murit ndax ni mu toll ci yoon wi sëriñ bi nee na mi ngi leen di jottali kàddu seex muntaxa akub siyaareem akub njaalam di ko jëmale ci njabootuk sëriñ Saliou Touré gépp nee na bàyyiwul kenn doomi boppam yi ak doomi xolam yi ak taalibeem yi ak taalibe sëriñ Tuubaa yi ne ci tund wi wépp te mu nekkoon seen jëwriñ nee na moom nag day jëmm joo xam ni ni mu toll ci xol yi day ab yëg-yëg ndax digganteem ak boroomam moo tax nee li sëriñ tubaab di wax waxay suma tafat ilaa kan xaxat yaxafta min xawfika ho kullu ahad nee na daal mooy xaybatu yi sëñ yi sunu borom def ci moom kon siyaar bi nag nee na dana koy tàmbalee ci sëriñ seex ni nga xam ni mooy jëwriñ sëriñ Saliou Touré di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tànd ko ku wér nee na di ko teg ci loxol rakkam itam sëriñ Abdoulaat ak sëriñ Moustapha sëriñ Moustapha mu sëriñ Saliou muy rakkam ndax sëriñ saaliw ni mu demee ak moom ka demee ak sëriñ saaliw ni mu demee ak moom nee na moom itam yàlla sàmm ko dëgëral ko kattanal ko nee na nag siyaar bi ñu ngi koy teg ci njaboot gi gépp nee na mu leen di xamal ni sëriñ saaliw ku doon liggéeyal sëriñ tubaal dundam yépp jox na ko sëriñ tubaab ba deseetu ci dara nee na moom mii mat na ci seede nee na bi mu ko tàmbalee siyaar si mat na weeri at yu tegal kon loolu nee na bokk na fi ñi ci ñi fi njëkk tàmbalee ñëw yàgg na lool nee na njabootu Serigne Abdou Khader gi tam amoon ndigal ci Serigne Abdou Khader ñu wax ne sëñ Saliou mu wax leen ni sëriñ Saliou ture bu kenn demati di ko teggi bu kenn demati Dakar di ko teggi man mii seede laa ci nee na wax na toog naa sëñ Saliou Touré wax ko ba tàyyi ni leen leneen Serigne Abdou Khadir digaloon sëñ bas mii yaa ko ciy sàmm ndax yàlla def na bi mu koy tal sëñ bii du dem Dakar mukk ba dëpp léegi rek la am ku ma koy wax ba dëpp te jaarul fii kon loolu moom daal dafa amoon yëg-yëgub sëriñ Tubaa ci moom moom maanaam fu ma ko gisee rek te sëriñ Tubaa rek lañuy wax sunu borom nag def ci moom barkeel muy nitu yàlla sëriñ Moustapha mu sëriñ Abdou Khadar mas na koo wax ni ko sëriñ Saliou Mbacke nee na ko sëriñ Saliou Touré lépp lu ma mas a wax teg naa ci sama bët sëñ Matar Jaxate mii xam na ci dara nee na am na loo xam ne kenn mënu ko wax ci mbooloo waaye moom boroom cër la nee na léegi la koy nettali ci yoon wi sëñ Massar Jaxate mii dund na ko ak moom diir bu yàgg boo xam ne dara duggul ci gémmiñam sëñ Massar ñaata fan la fukki fan ak juróom loo xam ne dara duggul ci gémmiñam ba bis mu ni ko nag dama wooroon xaal laa bëgg a doge demal wutali ma xaal andi kon moom loolu rek la ci mën a tënk waaye nitu yàlla dëgg ngi noonu koo xam ni tam ak dëddoom àdduna kenn xamul fu mu yem ca col ga ak ci dëkkuwaayam xam ngeen ni kër gi bu bi liñ ci defar ko su néew bi nu ko defaree yàggul te lu ne jaar na ci loxoom ku mu gis nga bokk ci sëriñ Tuubaa walla nga bàyyi koo Tuubaa loo fekk rek jox na la day joxe ba ki yor dépasse bi mu nungu ko joxe ko ci biir këram kon moom moo tax ci fajar nee na gént de moom daw ko nettali waaye li ko ci yéem bi fi sëñ Saaliwu bàyyi ko liggéey bii mu ko doon liggéeyal puut sëñ Saaliwu da ko seet ci këram man mii xam naa ci dara booba fi sëñ bi door a bàyyi ko am sëñ Saaliw lu mu wax ak moom nee na ñu tàggoo mu jëm ca toolam ya mu fanaan xëy suba julli fajar doxantu ba dëppaat mu tëddaat gént sëñ Saaliw lu kéemaane la bii ci guddi nee na yàlla seere na lii muy wax ci suba gi la gént nee na moom moom ñu toog nee na mu sol yére yu tilim ni gént yi tëdde rek mu mel ni ab dëj daal daa xew mu war caa dem moom sëñ Saliou Touré nee na mu gis yére yi ni mu tilimee nee na mu dugg ci walisam moom am na ko sëñ Saliou Touré ànd waaye xàmmewu ko nee na sëñ bi mu ne ko moom sëñ bi ma jox la mbubb garaam mbubb wala xaftaan lu ci gën mu ne xaftaan day ko gënal mu dem ci walis fi génne yére yi fekk mu mel ni du mbasin mu yëkkati jox ko mu dem ba koy bëgg a sol mu xool ni am na mbasin ci biir mu génne ko jox ko nee na loolu yéem ko xamul lu mu doon waaye loolu tey suba la kon moom moom daal Sëriñ Tuubaa na ko ak moom ndax yoon wi mu fi mujjee booba sëñ Sall Touré gëj naa wax ak ñu bari ki ci sunu kanam la maag Ahmed mii waaye bi bi sëñ Bass agsee mu xàmmee ko bu baax ba tàmbali tudd nag sëñ Abdou Khadar kon mu ne ko ñaanal ci liggéey bi mu ne ko sëñ Tuubaa moo lay ñaanal kon moom bu nu ko ñàkkee àdduna sépp a ko ñàkk ndax li mu doon njariñ ci jamono ndax bokk na ci ñi nga xam ni seen borom di leen ruus ci kaw suuf muy jëmm ju jafe ku bëggoon nit yàlla yi nee na sëñ Sall Touré nettali na ko kenn ci nit yàlla yi mu nekk ak moom fii ci kër gi mu ànd ak moom ci Serigne Saliou kooku di ko wax ni ko sëriñ tubaa nee na kon moom ku jege sëriñ tubaa la te moom mii de man na ci sedd yoo xam ni moom mënu ko wax ci ab rajo ci yu mu ko wax yoo xam ni moom dem na ba teg ci bëtam kon noo ngi koy ñaanal bu baax ndax ñaan du doy ndax rasulullaay sax dañ koy ñaanal yàlla na sunu borom doole ay leeram te taas ñu ci barkeem te sunu borom dëgëral njaboot gi defal leen itam te nee na gëm na ni mbiram saay sëñ salture saa su xëyee day gën a jëm kanam rek ndax léppam jox na ko Serigne Touba te loolu nag ci yéen rek la ko Serigne di faye yéen njaboot ci la ko Serigne di faye ndax tëlul woon ak njabootam léppam sëriñ Tuubaa moom daal nee na xam ngeen ni sëñ salture bàyyiwul leen fi dara kon nag nee na na seen xel dal bu baax seen njortu rafet te ngeen xam ni bu ko fi sëñ Abdou Lahad Mbàkke di andi laajoon ko seen sëñ Saaliw Mbàkke danoo waxoon ni ni nu dinaa leen andil koo xam ni dina leen àggale ca yàlla loolu itam fii jamono toll néew lañu ñu dégg ko kon ku gis lim fi jëf ni mu fi dajale taalibe sëriñ tubaay yi ni mu leen benneele ak pastéef bi mu def ci ñoom nga xam ne sëriñ Tuubaa nu gën a ab liggéey mi kon nag sëñ bi daal nee ñu koy fàttaliku bu baax di gën a sant bu baax di gën a feddali seen digg digganteem ak moom ci yéen sëriñ seex sëriñ bi nee na mi ngi leen nuyu baax yaag sa rakk yëpp nee na bàyyiwul kenn ndax yéen ñëpp yéen a fi dig njabootam su ngeen dajaloo di jëmmam kon mu ngi leen koy siyaare di feddali nag digganteem ak yéen la mu jàppoon ci moom tey la ko gën a jàpp ci yéen incha allah lépp lu ngeen nekk nee na dina ko ànd ak yéen nee na mi ngi sant bu baax a baax mi ngi leen di ñaanal bu baax yàlla dëgëral leen te sàmm leen nee na moom de amul benn jaaxle ci yéen ndax tëdd na at te dara yàqu lépp daa gën a jëm kanam loolu mbirum sëriñ Touba la mbirum Serigne Touba la Serigne Touba fu mu def dara du ko dindi yàlla rus na def barke ci barab dindiwaat ko yéen nag ku xam sëñ Saaliw li mu liggéeyal Sëriñ Tuubaa jënd jëf ji rek mën naa defar su seeni mbir ci àdduna ak alaaxira kon amul ci yéen benn tiitaange wóor na ko ni lu mu fi bàyyi day gën a sàmm day gën a ñoŋ day gën a yëkkatiku te dara du ko yàq jërë ngeen jëf sant bu baax a baax sëñ Modou Mbaye Samb sëñ Cheikh nee na nga jox sëriñ bi kàddu gi. xam naa li ma ci teg rek sëñ Bas ci li ma doon wax damaa ñëw fii sëñ bi ni ma million bii de sëñ Bas sëñ Bas Abdou Khadre moom moo ko jox daal di ree ni ma ci mbàkke mbàkke moo diw moo diwoo ma ci jox million ak moom ne waaye mag de ku ko bégal dina xam ne am na cummikaay ne ma mag ku ko bégal di nga xam ne am na cummikaay te sëñ bas bégal na ma démb kon noo ngi santaat bu baax kàddu gi ki ko yor muy sëñ Cheikh Touré jox na ko Modou Mbaye Samb waaye nun taalibe sëñ Tuubaa yi comme bi boo daan ñëw ñun ngay woo ñu agsi sëñ bi man képp la daan may nga dugg ci biir ma agsi ñetteel leen te la mu doon wax teg na ci suñu bët am na loo wax nag léegi lu la suñu borom wan bi ko defaree moom ba nopp ba yegg ñépp taxaw di xaar lu mat waxtu ñu ne dafa am lu war a ànd ak moom ñépp jaaxle ma gis mu Moustapha mi mu ne mbubbum Sëriñ tubaab mi ñu war a teg ci kaw